sama siis laa fi teg ku ñëw ma defal la bagage barke Seydina Mohamed 24 combats moom laa fi def musuma fee daanu. musuma fee daanu benn gars laa fi daan bil désert laa fi daan may ko ramas moo ma fi daan moom may ma ramas ramas daan ko à part ça loolu Gris Bordeaux mu daan ma ma daan ko keneen ku dul moom la lu ma fi suus man la noiro métti na ma trop nag